siyaare ñëpp di baalu ñëpp ak aussi di baal ñëpp ak di leen wax ne dafa am ci lu ñu nekkoon am fu ñu jógee am fu ñu jëm tey mooy dañu nekkoon di ànd ak Mayacine kamara waaye loo gis yàlla am na fu mu ko yemale mun na nekk loolu dafa jeex tey actuellement tey DG la ñuy ànd ak ci département de Koungheul pour politique mooy Aline Badara Ly loolu moom ñu ngi koy wax pour pour ñu xam lépp ndax nag ragal féete olof moo ko wax dafay yer dafay xañ a warsak pare nañ pour joxonteeg moom loxo ndax am na lu ñu tënk te déggoo nañ ci loolu moo tax ñuy fësal suñuy euh, jàllale suñuy message ci média yi ñu xam ne bés ni ki tey département de Koungheul Alioune euh, Badara Leye ñu ànd ak pour politique waaw pour nag suñ politique aussi suñ localité commune de Lour Escale ndax mairie Lour Escale lañ bëgg am foo jugee. Hmm? ba tax nga ñëw euh, loolu nga xam ne moom lan moo ko wut ñu dafa nekk ne lu yàlla jeexal lu ne day jeex te macha allah du ma ko catu lii lu comme lu sëñ Abdou Khadir waxoon rek Alioune saxaar la topp ci raayam di dem ku bëgg a dem ku ne defe naa war nga caa yéeg balaam laa raw. <laughs> non non pas loolu sax man fepp moy dem samay ngor moo ma fa bàyyi ak sama dignité waaw di and ak nit ki nak mu bañ ma ciof di ma téye ba mu parce que duma and ak man kuma ciof rek ñak ma waaw ndax nak topp ma nit ngir lu may jox wala topp ma nit ngir tam mbirum kom kom mais nak topp naa nit pour fi nga xam loxom jot na fa te sama loxo jotu fa moom mu nekkal ma ci kaw ma nekkal ko ci souf c'est ça man non lay dox. non bien sûr loolu moom loolu lu am la moom. léegi est-ce que yow li nga def nii am na ñoo ñoo xam ne bien sûr ndax balaa ma ciy dugg dama waxtaan ak ñi nga xam ne nag tey fañ ne feccam liir bu neexee yaay ja moo téye ca mbaggee mais man dama am ñoo xam ne ñoo ma jiital nekk sama kanam nekk sama ginnaaw du ma décider dara te ñoom waxtaanu ma ci moom xëy na man maa nekk di di mais ñoom nag ñooy moteur bi ñoom bu ñu waxee waaw waaw la bu ñu ne déet déet la ndax saa boo bëggee njàkk sa mbooloo demal ak sa bopp rek bu ñu la décider dara nga ne subaa dinaa ko def. te doo tàgg sa mbooloo ñoom bu ñu jëltoo ginnaaw rek man damay marqué zéro kon ñoom lu ma man ñoo ma bien sûr ñu ngi nii maam góor mu ngi nii taxaw mën naa la ko jox waaw moom la ànd waaw non moom kay ba suus koo buu rek incha allah rabbi joxante naag loxo moom te lu mu joxoñ man fas naa yéen a ko ak moom dama tànkaar yow rejoindre ki nga xam mooy mu nekk ndaw aussi ndaw bu set loxo yàlla ñu ñëw fii Firi Info ñëwoon pour dégtal ko li nga xam ne moom mooy sunu sunu micro euh, mu nekk ndaw euh, mu wax ko muy euh, nekk ci commune bi nga xam ne mooy Lour mais aussi mu jël décision ànd ak DG directeur général Alioune Badara di pour liggéey nga indi jëm ci li nga xam ne moom mooy politique incha allah yow sa engagement tamit pour la ñi nga xam ne mooy élection municipale yi jëm élection locale yi ak Alioune Badara li sa engagement tey ci boo ban côté nga ko gën a mën a taxawoo pour jàppale ko. Euh, waaw moom xam nga man sama localité xay na ñun euh, ñun ñoo koy téyeel suñu bopp mais nag il faut am koo xam ne moo ñu nekka si département bi aussi mu doy ñu te moom na si ñi nga xam bañ leen visé moom doy nañu waaw loolu moo tax ñu ñëw joxanteeg moom loxo loolu bokk na ci. non merci bisimilah. dañ lay bàyyi nga def sa sa kàddu bu ñu amee ñu lay laaj merci Cheikh Ndam maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di remercier bu baax a baax média yi nga xam ne ñoo def déplacement bi ñëw tey fekkee si cérémonie bu am solo bi muy déclaration boo xamante ni tey notre frère et ami hmm, Babacar Ndaw Thiam moo ko ñëw def ñu am mbégte lool nag dalal ko ci suñu ëtt ginnaaw bi ñu xamee moom li mu tekki ak li mu doon ci biir département wu Koungheul du ma ne sax commune u Lour mais ci biir département wu Koungheul muy koo xam ne tey ndaw la ku set loxo bëri njëriñ lool di jëriñ nit ñi ci li nga xam ne moom la ko yàlla dénk donc tey ñun bu ñu doxee ba suñu yoon daje mënuñ lu dul sant ci yàlla bu baax a baax fas yéene nag ànd ak moom àndu gor ànd nawlewante parce que àdduna defe naa ne l' avenir appartient au jeunes et moom ndaw la ñun ndaw la donc ñun la ëllëg soxal puisque ñun la ëllëg soxal nag fas na ñee ànd ànd boo xamante ni suñu ëllëg dina rajo te nag lépp nag ci kaw njëriñu département wu Koungheul parce que defe naa ne tey suñu seul su suñu seul objectif mooy xool fexe ba département wu Koungheul am loolu nga xamante ni moom mooy émergence

enjeu parce que moi je pense que nous allons vers des locales et que qui dit local pense vraiment de façon locale et que Taï, si on veut faire vraiment quelque chose de bien de durable au niveau local il nous faut nécessairement rassembler toutes les synergies et pense que c'est une valeur sûre sur laquelle on peut compter Nous na une opposition mais defu ko il a préféré ñëw xool ci biir APR groupe boo xam ne leer na ko ne mook ñoom bokk nañ affinité mu ñëw ànd ak ñoom donc ça c'est un plus moi je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire tey mënoon na mer ndax boddi biñ ko boddi fële génn dem opposition dem seeti ji Pastef wala mu seeti keneen donc nun tey su yàlla defee par affinité mu sentir ñun li ñuy def gis ne ñun ñi ne biir ab ayrakat

c'est l'émergence de notre département qui est le département de Kungel. donc ci lolou lañuy parce que président de la République Macky Sall son souhait le plus cher c'est de voir le Sénégal émerger et aujourd'hui cette émergence là n'est ci kenn kudul loxoy ndaw yi nga ñun am valeur am yéné am yeg yeg ci président de la république département de Congo, fi nga xamné nous donc nous sant di tàllalaat loxo yeneen ndaw yi mel ni moom rek nekk ci biir département bi te leer leen ne mun nañ apporter leur pierre à l'édifice ñoom ñoo ñu ñëw ñu ànd ñu jàppalante jëmale département wu Koungheul kanam yóbbu ko parmi les départements les plus émergents si vous voulez de ce pays au grand bonheur du président de la République Macky Sall. alors waaw xam nga lii nga gis nii tey so, c'est le fruit d'un long labeur le fruit d'une très longue communication entre les deux parties ndaw wax na la lu am solo mooy dafa ñëw pas ñëw moom kese mais dafa ànd ak parce que responsable bu mag la mbolo mom mu andal dafa tok waxtan ak ñom tatane sen xalaat ba ñom ñep ñu nangu idée wu ñew and ak ñun nous ñëw ànd ak ñun bi nous ñëwee ñu ñëw toog ñu def conclave ak ñi nga harmoniser ni nga harmoniser ba ñun ñu trouver un terrain d'entente trouver une plage de convergence ça arrange tout le monde